di ñetti fan ci weeru juin atum 2023 final bu mag di final interclasse buy am ci sein bu ñaaxeen ki ñu parrainé bis bi nag di Alla Bada Gaye nekk président commission jeunesse sport nekk itam responsable politique bu parti socialiste waaye nekk commerçant foofu ci ñaaxeen final bu bi nag Alla Bada Gaye ni mu ngi woo képp koo xam xarit nga soppe am di jàmm foo mën a nekk say dégg suñu kàddu ñu lay woo ci bis bu bi de muy final interclasse àll Bada Gueye ñu dara jaale ko bis mi moom mi xëy ni mooy président commission jeunesse sport nekk itam responsable politique bu parti socialiste nekk commerçant foofu ci ñaaxeen mu ni mu ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn képp kuy dégg suñu kàddu fa ma di nekk àll Bada Gueye di commerçant responsable politique président commission sport ñu dara ko bis bi nga xamante ne final interclasse lay doon am ci simb bu ñaaxeen ñu ñu fay amal nag euh, fànn yu bari lu mel ni handball ak football yooyu yëpp dina fa am ndongo yi di ko jongante ci seen biir final interclasse la samedi lay doon ñetti fan ci weeru juin atum 2023 Alabada Gueye président commission sport responsable politique parti socialiste commerçant a Ñaaxeen di ci woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ànd jàppale ko ci bis ba bi jërë ngeen jëf